internet Sunugal 24 euh, mbégte la ci ñun saa su nekk ñuy ànd ak yéen ci suñu ay euh, programme euh, ci biir suñu Sunugal 24 ku ne xam ne ne nag saa su nekk dañuy topp actualité di waxtaan waxtaane lépp loo xam ne moom moo di tolluwaay réew mi waaye itam des fois ñu xool ay nit yoo xam ne nit ñi namm nañu leen wara nit ñi war nañu leen découvrir à travers li nga xam ne moom moo di seen seen ak talent bi nga xam ne moom la ñu am ñu ñëw toog waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moom moo di ca la ñu nekk tey dañu dalal ndaw loo xam ne ràññee nañu ko ci musique gu Sénégal bu ñu nee musique gu Sénégal nag moom dañu koy classé ci xale yi nga xam ne ñoom ñooy soog a jóg te euh, war a mën a am peut-être benn visibilité bi wala Sénégal war a leen mën a ràññee ci li ñuy def donc yaay booy la ñu dalal tey euh, bàyyi kook euh, ami internet yaay booy ñu ngi lay nuyu. di la remercier ci invitation bi di remercier Sénégal 24 yëpp aussi di nuyu képp ku may seetaan wala képp kuy déglu rek waaw. seetaan. yaay booy à travers Sunugal 24. Mm. xam nga fii moom fi la lépp xewee. Mm-hmm. donc merci beaucoup ci euh, euh, ñëw bi nga ñëw tey donc ci biir suñu Sunugal 24 euh, mais yaay booy nekk benn artiste boo xam ne comme ni ma ko waxee sànq da ciy baax pour ñu wane talent wu ñi nga xam ne ñoom ñoo di yenn artistes yi surtout ci maison de prod nga xam ne ci la ñu nekk. Mm-hmm. donc bu ñu bëggee xam sa début de carrière ak naka nga def tey ba ba commencé dugg ci musique bi commencé way ak morceau yi nga xam ne moom nga jot a def ñu ñu ñu. ñu ràññee la ci. Mhm. donc euh, maa ngi commencé def euh, musique depuis a bas âge laa mhm. ngi liggéey bu baax a baax am na aussi trois single bi mooy sama troisième single di Coco. waaw. Mhm. waaw il paraît que am na yu fi jot a jaar jigéen jaar na fi cuuraay jaar na fi koko soog a ñëw donc voilà ndaka nga def ba dugg ci musique loo doonu la peut-être don la wala ndaka nga def ba ba ba nekk euh, artiste tey benn côté dama ko doonu parce que boo juddoo fekk say maam di def musique say yaay def musique donc ndono lay doon si yow <laughs> aussi tamit amour a ngi si waaye <laughs> mhm. euh, ban année nga commencé musique non loolu xamatuma ko nag parce ba muy commencé musique boobu xale laa woon mais ba ma ci duggee carrément carrément loolu 2009 2010 yooyu. 2009 fan nga dooree. maa ngi dooree ci benn groupe dara bu ndaw. Mm-hmm. buñ doon wax asbi bi fa laa nekkoon ensuite ma dem retourné ñëw Roktim nekk di fa liggéeyee. d'accord di liggéey ak Chérif Diop Sabreen. Mm-hmm. ak ñeneen ñi. d'accord mm-hmm. Roktim il paraît que jaar nga fa. ñaata at nga fa def. depuis 2013 maa ngi foofu. 2013 ba ban année nga fa jógee. ba tey maa ngi fa. ba tey yaa ngi fa. Euh, bu ñu ñëwee si Rockteam ñoom ñoo produire sa single yi nga def wala boobu ba léegi produire guñ la. si ñoo ñoom ñoo produire euh, jigéen mm-hmm. ak cuuraay ensuite mooy liggéey sama beneen bureau aussi bu nekk France mm-hmm. labelam de quarante cartel moom moo moom moo def euh, coco comment ça fait ngay liggéey ak ñaar ñaari ñaari ñaari label waa loolu mën na nekk benn instant su ngeen déggante bi yéen ñëpp parce que ki moom ki moom quarante-huit cartel ak ki nga xamante ne moom moom rokkim ñoom ñaar ay gaañ lañ dañoo xamante donc liggéey bi ñoom ñun ñëpp dañ ci déggoo di liggéey est-ce que yomb na ñoo def produit mhm. kooku ñee 48 cartel ñoo ko def mhm. mais enregistrement yeeg yëpp Rockteam lañ ko defee vidéo yi sax waa Rockteam ñoo mhm. est-ce que est-ce que yomb na tey ngay liggéey ak koo xam ne moom nekkul basam nekkul Sénégal ndaka ngeen di liggéey waaw yomb na yombul am na yoo xamante ne bi nit ki moo ko mën a defal boppam mais am na yoo xamante ne bu fekkente ne comme ni ma la ko waxee rek moo ngi liggéey ak euh, sama gars yi tamit mm-hmm. fii ñoom dañ koy mun di jàppale si lu baree bari comme enregistrement yi vidéo yeeg yeneen ak yeneen tamit moo tax day metti mais benn instant du metti parce que am na ñu koy jàppale fi am na ñu ko fi nekkal quoi. d'accord mhm. euh, yéen ñi ñu dàpp di ñu seetaan ci biir euh, Sunugal 24. Euh, mhm. ci biir émission bi nga xam ne moom ngeen di seetaan nii maa ngi dalal yaay Boye mu di une jeune ba nga xam ne elle est di yëngu ci musique bu ñu nee ci musique nag comme ni mu ko waxee Rock Team daanaka fa la ñu ko commencé xàmmee avant avant Rock Team mhm. jaaroon nga ci ay maison de prod mais yàlla deful woon peut-être ñu produire la donc boo ñëwee biir Rock Team ñu xam la foofu am na ay ndaanaan yu fa nekk yu nga xam ne ku ci mel ni Serifou Job sa brand euh, donc loolu ci kanam dina ñu ci ñëw mais est-ce qu'on peut te connaître davantage à travers ta voix maanaam bu ma nee ta mooy que des fois yéen instruments yi ngeen utiliser bu leen di def son bi dafay dem ba du ñu mën a xam ndax artiste bi mën na woy wala déet mm-hmm. est-ce que pare nga pour defal ma fi benn benn a cappella boo xam ne dinañu mën a xam ne kii vraiment ndaanaan laa ngi nii <laughs> waaw ndaanaan laa daal ndax ndaw ma ndaanaan laa. mu ne du teew ñii ne ban kay de toute fii ku fi ñëw ma woy loole. ok nii be faala nii be mbuutela nii be mbulala wote mbalila tooñaa fulaa eba kana faa kana mbuti fanaa isi ñini gaduma mi julale li nga woy nii ak li nga làkk nii lan la tamit ah li nga làkk lan la li ma làkk nii mhm. am na soose am na bambara mhm. aussi damay woy wolof mais damay woy soose tamit damay woy bambara parce que soose nga wala bambara wala ñoom ñaar benn lañ joolaa la sama yaay soose la mhm. aussi sama tante bi ma yar ci bambara lay woyee ñoom ay originaire mali mali lañ bokk donc moo tax kon bañ may jàng musique man si traditionnel mandeng lañ ma jàngalee musique moo tax nga bañ kenn mer daal nga laal ci ci yëpp toog jàpp sa njàmbur ni waaw dama doon làq mandeng bi kese kese mm-hmm. mais ci réseaux sociaux yi ñu bari dañ may naan lu tax doo woy wolof lu tax doo woy wolof dañuy bëgg a xam li nga wax moo tax léegi su may def ay su may def son damay def benn partie bi wolof beneen partie bi mandeng léegi li nga li nga ñu woyal nii sànq boo ko mm-hmm. bëggoon woyaat nii ci wolof noo koy defee <laughs> soo bëggee woy ci olof da nga koy waat ci olof rek. est-ce que dina yomb ci yow. non du yomb nag. du yomb ci yow. <laughs> doo essayé ñu xool. wala day metti mën naa la ko wax nii nii rek. waaw waxal waxal ñu daa dama ne rek bu fekkee ne danga may rey. Mm-hmm. wala danga may dóor wala danga may bàyyi sax loolu duma tere di la wax dëgg loolu laa <laughs> beaucoup euh, euh, merci beaucoup euh, euh, mm-hmm. donc dañuy ñëw ci li nga xam ne moom moo di sa carrière musicale. Mm-hmm. yaa ngi koy wax yàgg nga ci de telle sorte que yow sax at yi jàppoo ko donc est-ce que ndawul ci yow. nga nga dem ba peut-être tey ñu la fi ñuy dégg yeneen artistes yi wala nga yam ci ñetti single yi nga xam ne moom nga jot a génne kese. Mhm. Euh, benn instant ndaw na ndawul parce que peut-être musique bi may def ci la Sénégalais yi orienté wul bu baax. Mhm. jéem ñu ci découvrir wala dara tamit. ban musique ngay def man world music laay def. d'accord waaw parce que sama musique son yenn son yi sax ay afro la ñuy nekk dama si laaka bande mhm. donc. moo tax ñu bëri duñ ko découvrir aussi tamit damay gis réseaux sociaux yi ñëwee naan dee làkk olof dañuy bëgg a xam li ngay wax mm-hmm. peut-être li ñu xamul lu may wax moo tax mm-hmm. peut-être tamit li ñu si gisul marimba mm-hmm. parce que Sénégal dafa taamu marimba aussi moo tax mais pour nga ah. war a fës tey jii parce que Sénégal comme ni nga ko mm-hmm. waxee dafa am nu muy nu doxee. Mm-hmm. donc boo fi doonee artiste bu nga xam ne amaa ne yow milieu bi ngay bi nga nekk. Mm-hmm. world music bi nga wax. loolu ngay incarné sénégalais yi loolu fere jeew leen ñeent ndax fii mbalax mu tarmee fi am est que doo <laughs> jéem a fexe. noo mën a duggee ci mbalax bi pour nit ñi mën a xam. peut être kan mooy yaay booy ba pare. nga soog a mën a orienté wu ci beneen côté bi. Euh, du ma du ma bannir ma la maa ngi damay def dinaa def musique boo xamante ne tamit day am marimba mais dama foog ni nit ki bu lay bëgg da lay bëgg si ni nga ni nga ni nga nekkee. du dëgg si ni nga mel ak li ngay liggéey. Mm-hmm. nit ki si loolu la war a bëgg. nit tey Sénégal dépassé nañ fi ñu war a toogee artiste bi di def nit ñi lu ñu bëgg pour ñu ñëw doo ko mën a bëgg du dëgg. Mm-hmm. artiste bi da nga war a def li nga xamante ne yow moom nga bëgg a def. da war a def li nga xamante ne tamit mooy musique nga teg ko yëpp ci saxti musique. Mm-hmm. gars yi ku la siy bëgg si loolu. mais néew ma tamit du ma def mbalax parce que am na son yoo xamante ne tamit am nañ ay marimba. Mhm. d' accord. Mhm. Euh, nga ñëw intégré biir euh, ñoom Serifou. Job mhm. sa brand. yomboon na wala yombul parce que ñoom itam nekkuñu ay nit yu nga xam ne nii nii wala ay nit yu ndaw lañ ñooñu pour ñu yor la il faut nga am benn talent bu nañ ci yow parce que macha allah gis nañ ay artistes yoo xam ne jaar nañ ci seen loxo. on peut non yomb na am benn problème ba may nekk ak ñoom boobu mën naa ni kenn xamagu leen. Mhm. donc man ak ñoom dañoo débuté ndoo dañoo commencé ndoo barok te di dop di commencé laa nekk ak ñoom commencé ndoo di dem ak ñoom di dem ak ñoom ba léegi aussi tamit gisuma ci benn benn lu ñaaw sama diggante ak ñoom ñoo ngi cool ñoo ngi nice dañ ma def comme seen sœur boo gisee seen son yu yu bëri man maay nekk seen këris bu ñu def live man maay nekk seen këris man ak beneen gel ndaya mm-hmm. di ko bëgg baale daal comment ça fait que yow nga débuté ndoo ak ñoom Serifou Diaw mhm. sa brand ngeen mhm. nekk ak ñoom gis nañ fa ay artistes yu jaar seen loxo maa ngi koy wax léegi mhm. le cas de Dieyla mais Dieyla dafa ñëw rek fël ñu ne voilà Dieyla mu ngi nii mu nekk benn Dieyla international peut-être que seen petit gàlle bi mu jaaroon mais elle a du talent donc yow moo tax peut-être amoo possibilité boobu jékki-jékki rek génn ak sa ay son yoo xam ne bu génnee it lay def peut-être dafa jotagul wala yow talent bi moo des wala yow xam-xam bi <laughs> bariwul wala doo gëstu wala dañ laa jàppalewul walla lan la. non jàppale nañ ma maa ngi gëstu talent bi tamit mi ngi fi mais comme li ma la waxoon sànq rek. <laughs> musique yi ñoo différent sénégalais pour mu gaaw laa adopté da ngay bëgg di def mbalax. <laughs> pour attire leen si yow moo tax loolu laay mën a wax quoi. mais man bañu ma def mbalax mais aussi. li nga xamante ne man moom laa opté def. Mhm. loolu laay te def ma nit ñi gis ma si bëgg ma si ñëw nekk ñëw topp si li may def quoi parce que man xam naa li may def dafa baax. musique lay def mais est-ce que am nga ci ay ay fans tamit. yu topp sa ginnaaw yoo xam ne. Hmm. fans yi bari na daal comme mbalax bi nu mu taree nii. waaw am naa ci ay fans et tout am naa am na gars yi may suivre am na ñu may proposé sax naa ma ñëwul def def live ñuy mën di ñëw affaire yooyu moom yooyu noonu. Mhm. ñu lay gis des fois première partie ñoom Cherif yi yaa koy yaa koy yaa def. mais mhm. des fois itam doo ko def en wolof. Mhm. pourquoi yow olof bi daal sawaroo ci. <laughs> non déggoo man la man si mandeng lañ ma nàmpalee ci musique mandeng ci laa judd ba maa gisee. donc du ma mën a bàyyi maanaam nee nañ la boo wàccee sa ànd ànd boo dem fekk. fa borom est-ce que duñ la delloo Mali kon nga bàyyi suñu mbalax beeg suñu olof yi tamit nag. est que doo dem Mali nag ah mais yow yow ay mandé ngay woy ay yii nii ñun ay sénégalais lañu. mais am na ñoo xamante ne bii ñoom musique boobu moo leen neex du dëgg am na ñoo xam ne musique boobu moo leen neex mais ñooñu minorité lañ ci réew mii de. fexeel ak occupé majorité bi <laughs> ah. garaawul mën ngaa gérer non benn problème. waa du la yàggal ci yoon wi. garaawul yàgg yàq ko. temps boo fi def baax na na kii rek. est-ce que commencé nga peut-être di sentir sa bopp ci musique bi maanaam am na ay revenu yum lay andil. Mhm. que tey jii mhm. mën nañu dem ba ni que dépendre too ci kenn yaa ngi liggéey. Mhm. bien vrai que musique bi dafa saturé léegi. côté boobu laa lay waxee ne la musique. aussi mun nga nekk ci musique bi kenn xamula nga ciy bénéficier wu bu baax. comme mën nga nekk ci musique bi ñëpp xam la te doo ci bénéficier. yaa ngi yëg sa bopp yow. waaw bu baax maa ngi liggéey ci musique bu baax euh, teel naa si teel naa ci dund. Mhm. teel naa ci euh, mën a yor sama bopp. en fait li ñu comprendre wul te bëgg mhm. comprendre mooy que. Mhm. yaa ngi ci yor sa bopp yaa ngi ci bénéficier wu. te amaana génnee goo fi benn single bu ñuy wax. génne woo fi single bu def it génne woo fi single bu def ay millions de vues. Mhm. ci ban côté ngay ngay yëgee sa bopp wala dafa am ñeneen ñooy liggéeyal ñu lay fay. wala mhm. qu'est-ce qui se passe da ngay tëgg ay soirée de en temps. côté bi may xamante maa ngi fay euh, avant Covid bi doon naa def ay ay soirée. Mhm. after doon naa liggéeyee La Loge. doon naa liggéeyee Mbour ñaari resto yu nekk Mbour aussi ñu ma doon fay aussi maa ngi doon liggéey tamit comme choriste. Euh, liggéey naa ak Thione mm-hmm. ak Aji Ouza ak mm-hmm. Queen Biz mm-hmm. Seydi Fok Diop Sabren macha allah Papa Thione Thione du liggéey voilà merci beaucoup <laughs> fidèle internaute Sunugal 24 voilà ba tey yéen a ngi ci biir émission bi ma dalal euh, yaay booy yaay booy euh, wax ñu ci musique loo ci dund loo xamante ne ni dem na tax nga découragé mm. ba ba waroon mën a tax arrêté nga arrêté sa musique wala amoon na temps boo xam ne arrêté woon nga wala lan nga dundu ci musique en fait <laughs> musique moom boo si nekkee comme nga dem marché la rek di nga si dund lu neex di nga si dund lu nakari di nga si gis lu la di nga si gis lu neexul aussi donc neexul nga nekk artiste. Mhm. nga génne ay single affaire yooyu noonu ni nga bëggoon affaire demee ko demeewu ko neexul mais aussi da ngay kay sante yàlla aussi xam ne man li may def dafa baax musique bu may def dafa baax au niveau international gars accepté nañ sama musique. Mm-hmm. donc duma ci duma ci duma ci am nakar dama ciy kontaan aussi. donc ñi may woo tamit di ma ñi ma ci majorité yi may woo dima ma di ma gën a félicité ci sama musique mm-hmm. di ma gën a encouragé may naan fi nga nekk teg fa sa tànk bu ko kii ñooñu ay connaisseur de musique lañ ci musique la ñuy yàgg a nekk xam nañ musique xam nañ musique bu nekk fan lay dem mën nga siiw tey am benn problème mun nga siiw gars yi ñëpp xam la mais dans cinq ans fan ngay nekk est-ce que siiw boobu musique boobu nga doon def sénégalais bu ñu miinee sa musique di nga siiw mais bu ñu ba miin sa musique ci deux ans trois ans pare nañ si. da ngaa wax ni que nga nekk ci milieu bi ba léegi mosoo ci dund dara lu metti ak des fois yi wax dafa bëri ay tentation <laughs> dafa metti pour nga réussir ci c'est tout un problème. Mm. mais yow bon fet fait benn bës nga am ci lu la metti ba nga tax nga bëgg a abandonné. non di nga am lu la metti mais doo bëgg a abandonné parce que lu la metti loolu noonu taxul woon nga dugg ci musique bi. Mm-hmm. boo ko gisee da ngay naan benn épine la woon ba nekkoon sama kii rek da nga koy enlever teg ne avancé. d'accord mhm. comme world music ngay def amagoo occasion dem ay tournée internationale. non amaguma occasion def. tournée nationale waroon naa dem mhm. le sept août bii nii benn festival mhm. donc problème covid bi moo taxoon demuñu festival bi fan la euh, France Nantes incha allah août bii di ñëwaat allah bu Covid bi kii yooyu rek xam nga dinañ ko biisaat ak 48 cartel. incha allah. Mm. xanaa da ñu invité bu boobu. <laughs> am benn problème. Eh, macha allah yàlla ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm. Mm-hmm. donc euh, bu ñu ñëwee. ci sa mm-hmm. côté vie. Mm-hmm. nga nekk benn jeune fille. ni ma waroon kiiwee sax est-ce que loolu du ma ko tëjee. Oh. marié wala célibataire <laughs> lañ dugal ko ci digg bi rek. non célibataire. célibataire mm-hmm. donc euh, milieu bi bari ay ay ay tentation mm-hmm. euh, surtout boo doonee jigéen. Mm. dañu naan que boo nekkee ci milieu bi rek déjà dafay am fuñ lay classé. Mm-hmm. Euh, ndaka ngay dundee ak yenn commentaire yooyu. man nag mën naa ne ñu bari yaay lañ ma jàppee ci musique bi xaw ma na xam comprendre nga comprendre mm. parce que. ñu bëri dafa am luñ ma rusee. da nga sedd tu es <laughs> xam nga sa kanam bi dafa lewet waa xam naa mhm. <laughs> ñu bëri dañ dañ ma am luñ ma rusee aussi ma ñëw dal ci ay loxo yoo xamante ne bii damaa yàgg a nekk ak ñoom quoi demuma di di chercher yeneen label mhm. wala ma dem chercher beneen si bu ma war a nekk ma war faa mën a gis ay tentatives yu mel noonu mhm. gars yi ma nekkal dañ ma yàppal comme comme sœur comme ñu ñu bokkal ndey ak baay donc tentative yooyu peut-être que ni mës naa ko dund mais dunduma ko lu bëree bëree bëri aussi bu dee am na benn yoon lay doon. benn yoon boobu fan la woon rappelé ñu ko. <laughs> ak lan la woon no, ak la woon. non yàgg na parce que avant may dem Rockteam mhm. am na benn waaye ba ma ne woon dama la bëgg a produire. Mhm. ma foofu mu mu kii ma studio quoi ma dem fa ma fa demee mu ne ma euh, dama bëgg ñu nekk man na yow. ngeen génn daal. waaw. ma ne ko man loolu indiwu ma fi liggéey moom fi indi comme da ma gis ne ma da nga bëgg ñu liggéey mhm. mu ne ma non mën nañoo liggéey mën naa la jàppale si lii ak lii ak lii mais da ngay ñëw ñu nekk. Mhm. aussi man ne ko ah, loolu mënul nekk. xam nga lu tax nangu yow da xalaat ne boo leen nekkee leneen mën na la ci fekk. non du loolu parce que booy nekk ak nit ki day fekk maa ngi sama copain yi tout moo ñu boole woon mais nañ liggéey ku nekk dem sa yoon daal. après ngeen def nan après muy forcé ma ne ko non non laisse tomber mu bàyyi mu dem ma dem. d'accord. Mhm. à part loolu dundaatoo ci leneen. non. <laughs> man <laughs> eh, ngay waral de. non du naatuma si leneen. d'accord léegi mhm. dans ta vie lan nga ci dund loo xamante ne nii anecdote la ci yow. lu metti wala lu neex. non wax ma lu metti man mooy bëgg à chaque fois di jooyloo samay invité. <laughs> non li ma dund mu neex mu neex ma trop trop. metti lu metti quoi ci lu metti la lay commencé soo ko ñëw dama lay jooyloo pare soog laa reetaan. non man damaa dëgër xol nag <laughs> non. jigéen lu mu gën a a dund lu metti ci ci dundam mm-hmm. mooy ba ma divorcé waaw loolu metti woon na ma torop mm-hmm. Mm-hmm. kon marié divorcé nga divorce bi bëgg nga ñu xuus ci wala bëggoo man soo bëggul rek ma bàyyi non bul xuus mais metti woon na ma quoi metti woon na la parce que boobu xale nga woon non yàggul noonu lu ko waral musique bi la soxna sëñ bi bëggul wala du musique bi affaire àdduna la. affaire àdduna la. Mhm. da waa ji moo tax affaire bi metti la wala wala lan la affaire doyuloo. xam <laughs> nga jigéen nga yàlla. toog boo nga dee fa ñu la. du mhm. wala nga téye ñu sa jëkkër mais bu yàlla dogalee rek na nga ne yàlla dogal nga toog toog di misère daal parce que. doyuloo ci misère non non da ngay continuer liggéey. Mhm. liggéey. liggéey lan moo la metti woon en fait ci ci divorce boobu. mais dafa néewul. ku nekk bëgg ngaa toog boo amee sëy nga toog fa ba nga dee fa. parce que du ñàkk bañ lay may. ñii dana fa toog ñii ne du fa toog. voilà ñii xam nga nu ñu sëy yi yooyu yaa ma ah, gën a xam lu koy war nag woo artiste dafay am fu ñu leen di classé déjà du ñu sëy mais ah, garaawul yàlla baax na xam nga mës ah. garaawul nañ mës a sëy mm-hmm. ñaan nga yàlla tey boo gisaatee borom kër dem incha allah pare nga pour delluwaat yàgg na mm. est-ce que di waxaale tamit non waxaale wu ki la takkoon xanaa ci milieu bi la nekk. <laughs> les tomber bàyyi la lool nañ dem si leneen. d' accord xam nga man moom mooy loolu damay bëgg à chaque fois. ñii seetaan mën a xam. xam nga du ma fi di junju yii nii non non man du ma def yooyu. ah man damay dem directement. comprendre nga. mais mais yow daal. sa divorce bi daal moom bokk na ci li nga xam ne affecté na la. xam nga nga souffrir ko mais à la légère. non mais passé na dañuy liggéey. donc wàññi ci lan moo gën a neex. ak ci sa dund peut-être loo xam ne. bokk na ci sa vie mais marqué na la. Hmm. li ma gën a neexi sama dund mooy ba ma njëkkee génnee single. bi nga njëkkee génnee single. bi nga njëkkee génnee single parce que foogoo ko woon. non def vidéo <laughs> <laughs> mu génn ñu teg ko si télé yi. Uh-huh. waaw loolu neexoon na ma trop. Eh, parce que foogoo ko woon wala am na foo jaaroon. <laughs> waaw produire wuñ la. Mm-hmm. nga ñëw euh, voilà. Mm-hmm. gars yi jàppale la ñu produire la. Mm-hmm. nit ñi di la seetaan xam ne nga xam ne yow am nga talent. waa ma xam ne léegi war naa mën a dëggantal njaay nag bokk naa léegi. bokk nga ba tey nii bokk nga. waaw génne ci sa bopp bokk nga daal. bokk naa. ci boobu avant ngay am single wala avant ngay nekk. carrément dangay naan ay waay man est-ce que a kii xam nga affaire mais boo demee ba gis ne yaa ngi léegi yaa ngi si biir des fois dinañ def ay dinañ def ay manifestation di la invité. Mhm. dinañ def ay plateau télé di la invité et tout dangay naan léegi bokk naa kon loolu liggéeyoon dangay gën a liggéeyaat doole. kasi kan mooy sa référence ci musique. Euh, je dirais Oumou Sangaré. Oumou mhm. bëgg naa la ko wax. Mhm. ñaar da ngeen dem ba. di <laughs> day mel ni voilà que moom ngay imiter quoi. non imiter wu ko mais tamit jigéen bu mun góor la boo gisee fu mu jaar ba yegg si nii artiste bu nekk bu jigéen bu nekk war nga mën a suivre ay paawam waaw même boo eggul fi mu egg sax mais war nga mën a suivre ay paawam. Mhm. ko eggul fi mu egg nga jege ko. musique Sénégal fi ne kan moo ci teg tànk. du fi teg tànk. waaw ci xale yi qui centre du peuple non non man ci xale yi wax parce que bu ñu nee instant bii rek xale yi la. waa je qui est le centre du mhm. fan nga ko teg. parce que gars yi bëgg nañ ko. Mhm. te xale la aussi waa moo tax dama la tegal Sénégal au niveau national yaa yaa yaa Wally yaa Sidi Diop yaa ci xale yi dafa am mhm. ci mag yi man mën naa. mais Wally ak Dieyla mën naa ne Wally ñoo bokk même génération Wally non non mag ñi ñoom papa Youssou Ndour la waaye Omar Pène. <laughs> xale yi xale yi ñoom Wally ñoom Dieyla ñoom Wally même génération bi la donc. waaw kon Wally laay wax. Wally ngay wax waaw. Wally laay wax. léegi pour lan nga jógee ci Dieyla daw wuti ci Wally. non parce que. bu fekk dama foog ne da nga wax ci catégorie boobu. ñoom non bu mu nee xale yi moom kii bu dee côté boobu damay naan Waly. Mhm. parce que Waly essence yi moom lañ gën a suivre fii ci Sénégal ci xale. Mhm. moom kan mooy sa woykat Waly ñëpp suivre ko taxul mu doon sa woykat. Hmm. kan mooy sa woykat. non man nag aw ma woykat dinaa déglu nag musique bu baax. yan genre musique ngay faral di déglu. <laughs> non damay déglu Salif Keita damay déglu aussi reggae. Hmm. damay déglu Cherif ak Diop Sabren mhm. damay déglu Waly mhm. sa relation ak Cherifou Diop Sabren. Hmm. lan moo la dugal ci ci ci seen seen label. label bi li ma fa dugal mooy Cheikh Ndiaye leader. Mhm. daf ma gis may way peut-être ma neex ko moo indi ma pour moo ñëw liggéey ak ñoom foofu noonu ci biir liggéey boobu noonu. Mhm. laa dem ba attaché ak ñoom nekk ak ñoom di liggéey ñoom. Mhm. aussi. d' accord. Dieyla mhm. fa la jaaroon. moment bi fa laa di nekk lu tax profité ci occasion boobu comme moom bokkoon na ci ñi nga xam ne. ñi ngi ko doon suivre. jusqu' à maintenant. nga jéem a def ak moom benn single sax. pour mu mu yóbbaale la. <laughs> non tollooguñu foofu. Hmm. non non tollooguñu foofu. single day fekk loo xam ne dangay def moom dafay def son. Mhm. boo xam ne man la ci sentir mu woo ma ñu def. wala aussi ma def son boo xam ne moom laa ci sentir ma woo ko ñu def. mais yéen a yaakaar naa ah. ne ñoom war nañ leen mën a ëffal boole leen nag ah. non tollaguñu fa parce que moom instant yii dafa nekkoon si yoonam di wut yoon man ma mhm. nekk sama yoon di wut yoon mhm. n'empêche ñoo ngi si jàmm. mu gis buntu daw dem waaw moo ngi ci wut yoonam man may wut sama yoon. kon instant yi amaguñ amuñu woon temps pour dañuy def benn kii wala daal léegi bu ñu ñëwee ci euh, li nga xam ne moom moo di actualité. Mm. Euh, ci côté jigéen ñi. 31 mm-hmm. baa ngi ñëw. Mm. te ku ne xam na ne 31 dafa am nuñ koy baaxoo di feete. Mm-hmm. amaana que ni ko nit ñi di dunde léegi bokk ak peut li nga xam ne moom moo di euh, comme ni nga ko waxee 31 pour catholique yi la mais léegi ñëpp ay féete 31 mais daf ci am ñoo xam ne daf leen di jaral. Hmm. voilà jaay seen góor comme xam nga li ni ko jigéen ñi di dunde rek 31 bi am sa ñaari copain boycott kon kenn ki dem. mu hmm. ñu nee 31 dafoo jigéen nga mës ngaa jaar ci 31 fàttali ñu benn anecdote ci 31 boo mës a dund wala dara bu ko defee ñu soog dugg ci kaaw jigéen ñi. <laughs> 31. mosoo am benn ñaari copain tay la kenn ki de wànd ak keneen ki. déedéet <laughs> man 31 lu gën a bëri sax duma ànd ak kenn damay liggéey day fekk may joué fenn mhm. lu gën a bëri yeneen yi nga xamante ne day fekk joué wu ma daf may fekk ma nekk suñu kër. Mhm. di togg nekk en famille su ma paree toog si tere bi seetaan seetaan bu jeexee après ma dem tëddi. loolu nga wax de. wallaay noonu lay demee. léegi bu ñu ñëwee ci côté jigéen ñi ni ñuy dundee 31 euh, mm. bi. Mm-hmm. mbaraan. Mm. ànd ak sa copain dem. Mm. di dund 31 comme si dafa nekk euh, fête bu extraordinaire surtout ci ñi nga xam ne ay jullit lañ. même bu nekkee fête bu extraordinaire sax am na yoo xam ne jaru parce que copain nit bu ngeen nekkee yàllaa leen boole n'est-ce mais waroo xool que ni daf ma war a damaa war a nekk kii nekk kii ñu jox ma lii jox ma lii ma ànd ak keneen ki dem bàyyi keneen ki amul sens usi benn guddi la day mhm. paase. Mhm. man daal gis naa ni xale jigéen ñi war nañ ci mën a xalaataat nice ci bu baax a baax a baax parce que am na loo xamante ni jaru ko daal jaru ko benn jaru ko benn benn benn yoon 31 décembre day paase ànd ki nga bëgganteel dëggantaan jaay loolu. tere wuñ ko mën nga ànd ku la neex ki nga bëgganteel mm-hmm. mais jarul ngay boycotté keneen muy toog fee di xaar après bi yeneen problème xam nga góoñ bu yàggee sax duñ la gëmati. loolu yëpp lu koy andi. ah loolu yëpp lu koy andi. ñàkk a doylu. ak lan. ah man laa ci gis de. léegi mbaraan foo ko bàyyi. mbaraan. Hmm. Ah, xëy na ñàkk a doylu rek ak fu seen xel toll rek xale jigéen ñi ñun ñun xale jigéen ñi. ngeen xale jigéen ñi. voilà man génnee ma <laughs> Euh, génne ma ci de. ah ay jigéen lañ. du dëgg. boo amoon message booy lancé xale jigéen ñi tey lan lay doon. li ma leen di lancé mooy ñu dem liggéey ci lu ñu moomal seen bopp. Mm-hmm. parce que nit lu mu la jox jox jox jox jox du la jox àdduna ak li si biir lu la jox lu lay suur li nga liggéeyal sa bopp moo lay suur. nit n'empêche nit boo nekkee moom mu lay defal tamit neex na ci xol. Mm-hmm. mais aussi nga wut loo moomal sa bopp. mais mu dee caaf bi takk di ko teg ci tali bi di ko jaay sax yaa ko moom ku la fa fekk dina la respecté. xanaa léegi taalatoo cuuraay de comme célibataire nga. <laughs> bañ a taal. ah woyoon nga fi cuuraay de xanaa man bëgguma lu neex. woyoon nga fi cuuraay de <laughs> ah. xanaa man bëgguma lu neex. taaloon taaloon nga fi cuuraay de. mais dafa sedd. Hmm. waa tamit. ban nga ñuy euh, tàggoo. cuuraay bi koko jigéen. Hmm. ban nga ñuy tàggoo. ah bu la neex rek yaay choisir. may choisir non <laughs> man bu am olof laa bëgg. bu am olof am olof. cuuraay am na olof. cuuraay waa cuuraay moom ku ko xam-xam na nag wax dëgg yàlla à la la nag <laughs> cuuraay moom non cuuraay à la sénégalaise nag. Ah. <laughs> bàyyi ma may la ko koo kon. kon may ma ko ko. suba teel bi ngay bala ngaa ñëw ñu nelaw xale yaa ngi may laajte mama ana papa au moins bon reste à mes côtés wow wow moom bo lay bëgg di yeewoo donc sa prunelle doon sa rayon de soleil nekk sa wet ngay bëgg di ma noyee juste la patronne je veux être sur ton trône. bi ngay woy boobu divorcé nga wala boobu divorcé ko. koko sama dernier single la. <laughs> sa waxoon naa la. yow yow deux mois amagul deux mois. léegi ku moom koko bi kon. non dama ko way noonu rek. da ko way noonu rek. waaw pour bégale ko fans yi pour ko fans yi. des fois day am ñoo xam ne li ñuy woy loolu la ñuy dund moo tax ma lay laajte. <laughs> non dunduma lool dundoo lool. mais dundoon nga ko. non ah non dundoon nga nag bàyyi ngay def nag dundoon nga ko nag ah. yow Eva est-ce que doomu bàyyi tamit. <laughs> tamit eh, booy tàggu tàggu bi defe naa neex na bi que wax dëgg yàlla euh, mbégte la woon ci ñun ñu dalal la fii tey donc dañu lay bàyyi nga profito euh, nuyu ñi nga xam ne ñoom nga bëgg a nuyu bu ko defee rek on se donne rendez-vous très prochainement am naa ah. booy dem Paris yóbbaale ñu incha allah. incha maa ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu caméraman bi xam nga. Mm-hmm. di la remercier ci invitation bi di nuyu Kaba sama doom lay aussi. Mm-hmm. di remercier ñëpp ñuy seetaan Sénégal 24. di remercier Joola Kro di 48 cartel DJ Baara fu Diop sa brin rok tim ñëpp sama gaay suñu waa Gàlle maman et papa les frères et sœurs ñoom ñëpp daal ok. ak ak ak ex monsieur. <laughs> di leen naan yàlla jàmm yàgg rek. <laughs> ni nga ma ragajoole billaahi <laughs> est-ce que doo ma bàyyi. merci beaucoup fidèle internaute Sunugal 24 di nuyu bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan Evista Makeup à chaque fois moom mooy ñoom ñooy jaar samay perruque Eva borom Evista Makeup kooku sama sœur la. Euh, mi ngi ci fiñ bi en face école Ndiarka Diagne képp koo xam ne rek bëgg nga mu defaral la perruque surtout décembre bi nga xam ne mu ngi ñëw te dafa def li nga xam ne moom moo di promotion maanaam prix yi daf ko réduire ba mu ba mu tuuti uniquement pour satisfaire leen donc 78 110 64 63 ngir mën a jëflanteeg moom ci perruque yu baax yi confection yi simpot yi bouclage yi ak yëpp. bu ko defee rek voilà ngeen mën a belli ku leen gis na leen yéen a nga ca di sant di gërëm ñëpp ñi nga xam ne à chaque fois ñu ngi ñu ngi bàyyi xel euh, moo xam euh, ñu fësal ko wala ñu ñàkk fësal donc euh, suñu xel dafay dem saa su nekk ci yéen dóor moo nekkoon ci technique bi Serigne Cheikh Niane maa ngi koy nuy bu baax a baax di ko ziar di nuyu sama papa Aziz di nuyu Soriba borom le le 24 borom le 14 ci Iba Mar Diop donc mu doon loo xam ne ñëpp ñu ngi koy waajal donc di leen wax ni que woy leen di ànd ak ñun ci suñu ay euh, programme euh, ni lay demee saa su nekk rek euh, di leen wax ne fi ngeen teg seen loxo foofu la programme suñu gaal 24 suñu gaal 24 yéen la fi nekkal di leen sant di leen gërëm prochainement lay doon incha allah ak yeneen i ndaanaan ci biir réew mi ñu war a waxtaane waat leneen ci biir suñu gaal 24 jaa ngeen jëf